salaamaaleykum comme niñ leen koy faral di waxee saa su ne yéen a ngi ànd ak Africa Press 24 tey nag ñu ngi woon fii Médina seet si ki nga xamante ni kenn dootu ko laajte seet si ndaanaan bu mag muy kan Djiby say di jarbaat si Youssou Ndour duñ def dara loolu balaa ñuy continuer waxtaan bi bàyyi ko mu nuyoo Djiby nuyu naa la. waaw soxna si maa ngi lay siyaar di la jox sa wàcc waa di siyaar Sénégal yëpp di siyaar képp ku nga xamante ni yaa ngi seetaan Africa Press 24 euh, di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax macha allah. Jibi mën nañoo xam lan moo la dugal ci musique. ah man moom wax dëgg li ma dugal ci musique bëri na parce que mën naa ne dama juddu fekk sama famille maanaam magum yi sax daaw ñu way musique comme.

musique bi ñuy def ñett lañ man la Abindou Youssou Ndour. yow lu famille di way moo tax nga dugg si waay bi wala bëgg-bëgg la. bëgg la amour la parce que musique moom boo demee ba dugg ci. ak lu mu mënti doon amour lay doon boo amul amour ci loolu ngay def mënoo ci mënoo ci yàgg mënoo mënoo ko def parce que musique moom yombul yomb na. Euh, en fait mooy li ma la wax rek donn la mais léegi ci biir donn bi yàlla dafa dogal ñu ñu bëgg musique. di ah, di ku nekk di ànd ku nekk macha allah bon alhamdulilah noonu lañ noonu noonu lañ ko bëggee daal. te nit loo bëggul moom wax dëgg fa yàlla moom ah pour man mënoo egg fu sori ndax. mais jibi gis nañ ni dafa mën a way te jibi lan moo tax fu ñuy dégg ñoom Pape Diouf ñoom waali kenn da ko fa dégg. waaw macha allah sant yàlla bu wér a wér a wér parce que aar maanaam li ñuy wax rek du ëmb waaye day xëy rek wëssin bon ñun xëccoo wuñu yàqamti wuñu suñu bëgg-bëgg la ñu ngi koy bon man teguma kenn bët ah teguma kenn bët muy ku mu mënti doon ci aar bi man gëm naa ni lu lu sotti am borom parce que mënumaa ñoddi loo xamante ni tey jii nii nii nii force force ko te te nekkul looy forcé te mënul nekk tam damay sonn yàlla bu ne damay fës damay fës kenn mënu ci dara yàlla bu ne damay génn ñoo ñëpp gëm naa ni kenn dàqu ma ci way mais ci biir ñàkk dàq way boobu yàlla mooy dogal jaam pexe la am. lan moo tax nga ne kenn dàqu la si way. kenn dàqu ma ci way xam naa ko gëm naa sama bopp yi. ñoom ñepp kuma ma sa seen xam nga xam bu baax ku kii la mën Olof Ndiaye moo wax voilà. mais est-ce que du jibi si label bu mu nekk mo baaxul wala. bon en fait label bi ma nekk euh, baax na parce que boy xol label bi ma yakamti yàqamtiwuñu ñoom seen seen liggéey boo yakamti da ngay son wala nga xadi parce que boy xol bari na fi way kat yo xamanteni tay ñu ngi signé ak label yoyu mais tew dañuy xaar ki la signéloo nak kooku. mooy mooy sa mooy sa produit mooy sa producteur. donc sa producteur moom wax dëgg yàlla tam moo mooy ki nga xamante ni moo war a génnee sa album moo la war a defal promotion yi. ak lépp pour ku ne xam ne ni Bouba Ndour moom yàqamtiwul ay bagages am yàqam yàqamtiwul daraam. mais teewul ma nit en tant que en tant que musicien teg ci en tant que jarbaatam boo gisee it tey su ma neexoon aussi ma ne damaa bëgg fës comme ñëpp kon du ma gisee leneen damay dem ci loolu duma ko mën def parce que ci famille la bokk bo xamanteni boy xol bu ñe musique sénégalais bu yegsee ful sori c'est grâce à eux machallah allah grâce à eux mais jarul ya xam te kon dal ci famille bi nga bokk moo tax yow mënoo jógee si foofu nga label boobu nga nek mënuma mënuma mënuma joggé fofu parce que tay amana amna ño xam ni ñu ngi koy gisé ni ki dafa dafa bëgg lu muy def ou bien dafa ñak fayda wala nekk na or ko du lolu art ak showbiz du euh du moins euh, carrière ak showbiz du ben parce que booy xool ñuy def showbiz ñoom dañuy ñëw rek def li ñuy def rajax rajax rajax pare dem seen yoon. bu fekkente ni ki nga xam ne carrière lay def ay topp musique am ci ci norme yi nga xamante ni fa war a jaare mooy li ma la wax rek yàqamti moo ko jarul. musique moom ñëpp ku ne sañoon booy way siiw ba ñëpp xam la siiw nit siiw moom ñëpp xam na ni loo siiw siiw bis dina ñëw nga xew. carrière nak boo def da nga ñaan yalla nek fi mo gën ñaan yalla am buzz rek après buzz bi jeex point mu jeex non non non. mais way ka di bëri bëgg nañ buzz dé waaw bëgg nañ buzz bëgg nañ buzz mais bon man bokuma ci ay affaire de buzz ay affaire de xam nga dégg nañ diw fi parce que buzz ñëpp ko man tay nama yalla yàlla suma su ma neexoon tey jii nii mun def lo xamanteni bu suba presse yëpp doge tooge ma. amee ma bu melni ni Youssou Ndour booy liggéey ak mom déjà ben boy xol ci mom do yakamti boy xol ci mom do tarxiis boy xol ci mom barki sayyidina mohammed foo bëgg yegg da nga fay yegg parce que momit it xolé xoolee carrière am ni mu démé ku né xam na ni euh, Youssou il s'est beaucoup débrouillé sonn ci art mais teew xol tay fiko art aar tay tey mën la waxat ci benen ci benen exemple tay boy xol euh, Césaria Evora cap-verdien boobu doon way pourtant

buñ ma gissé dafa melni seen yaram day raf vous bu mu or que soirée fa pour concurrence fa pour ni ñun ñoo la concurrence. wala man mal dakk way seen yaram day raf raf raf bobu lan waral xam nga sisu bi sisu amna ñoo seen xol atunul ñu gis bu way yek seen seen pourtant Sénégal ñu teg xaw ma góor yi la ñu teg xaw ma lu mu demee noonu teg ko seen kanamu seen pour kenn bañ a jàll te man tey gi nii ak ku mu mënti doon ci àddina soit nga nekk artiste mu ndaw soit nga nekk artiste bu ñu xam bu baax wala nga doon ku mag tey boo ñëw sama seen damay wàcc seen bi baay la nga way parce que siisu bi jaru ko fi jaru ko fi du Wally Seck kese bëri na fi waykat yoo xamante ni buñ la séenee barki Seydina Mouhamed doo yëg seen seen dañu teg ay punkal boo ñëwee ñu téye la te loolu xam nga artiste nga doo fa nekk naa da ngay xeex wala histoire da nga leen di romb dem sa yoon loolu rek nga mën. mais jibi dégg nañ la nga ne à part yi mag yi à part papa Youssou Ndour yow yaa dàq <laughs> ak ñoom ma la. foo ko teg te fu ñu leen di dégg dégguñu la fa. waaw mais yàlla jaam pexe rek la am mais yàlla dogal nit xëy na liggéey ba xëy dee doom dara te naa la muy liggéey moo ko dàq ñeneen ña koy def di réussir. Wali ni ñeneen boy yi fi way yeb duma ma seen morom. fan nga ko tek duma ko tek moy ma len dàq way man suma waye ñu way nga gis lan may way wali sek mënul way ci ay sabar sabar kese kese kese mënu ci way boko ko ben guitar guitare kese mu du wara def acoustique du ko def. mais wali lu muy teug ak mbolo bi yala koi ko de. deguluma la wax mbolo yalla koy may mbolo yalla koy may gis nga nit doo def lu baax nit ñi wër la dal di la dar la di la tagg di la wax loo xamante ni yàlla xam na ni nekkul ci yow est-ce que li ma la la déggee daal yow yaa leen dàq way. fuuf du ma seen moroom sax barki sëriñ Touba Mbacke mun naa la wax loo xamante ni billahi azim moom si boppam xam na li may wax bu fekkee dégg na ko dina xam li may wax. Douta sekk bi nigaayam dafa doon def anniversaire ma fekk ko fa xam na ñoom ay ay ay kii ak kii lañ xam li nga wax te playback ma ñëw way ci sabar yi ne ko waali kaay ñu way mu ñëw mu dama yuuxu rek mu ne noo du graaw dafa am fu muy dem. <laughs> waali daw. ah ku ndóbin rey sama boo séenee lu ñuul dawal. day mais ji bi ba tey ñu dem si affaire mystique bi si musique bi bëri na yàkkante bi xeexante bi bëri na leeral la ñu si. mais sama loxo bii man ba ma feeb ba ma dammee ba léegi mënumaa wér te lu leer laa la wax. du ma ne diw du ma ne ma Samba du ma ne ma dem ba doo jiñ benn doomu aadama mystique bi ñàkk gëm sa bopp la. billahi azim am na woykat yoo xamante ni li leen li leen aar bi. balaa ngay continuer bu ma la déggee sa loxo bi si mystique mystique gi si la bokk. ah mystique gi ci la bokk. imagineel nga dem ma katana mënoo mënoo wér carrément boo dem ñu ne la lii tooke la buñ la sànni nii mais dafa la kii dala mooy sax nooy damay sant bi may dund ba tey instant biñ toll nii heure bi na ma yàlla jéggal. leneen la ñuy wax wala ñu may ñaanal heureusement ba ma solee casque mbuto laa daan dawal mais nit ñi dañ xool xam ni kii fi lañ ko mën mooy li Youssou Ndour di wax rek nit ku lay wut jéem jéem jotu dina xool fi nga gën a jege mu jaare fa xam na ni man dawalkatu mbuto laa ñu def ma liñ may def point tant pis mais jaar fa yàq sa teewul non sama loxo sax yàquwul mais xam loxo bu yàqu du yëngu def dara du def benn benn effort mais c'est juste tamit. Euh, moy li ma doon wax sank rek sa doomu adam bu fekkee da ngay def ben affaire wo ci sa bop wala gëmo sa bop rek ngay def yoyu di liggeyate yow do meuna dem mais tewul da ngay mystique nit pour dem bari na fi bu na nga fi gis mais man boy xol wali mako ñëk siw man bi may way mom wayu man ma nekkon groupe Ndongo Lo groupe jam man maa fa nekkoon ginnaaw ndongo bi mu génnee àddina. jibi daal bu ma déggee ñi nga xam te ne ñu ngi ñu ngi lay seetaan à part papa Youssou Ndour à part mag ñi yow yaa dàkk way fii senegal ah waaw loolu moom c'est vrai loolu moom c'est vrai gëm naa ko kii di Youssou Ndour kii di Omar Pène kii di Baba Maal hmm? Cheikh Lo magum yooyu ñooñu dañu musique moo nekk ci seen bopp est-ce que comprendre musique dafa nekk seen bopp nekk seen yaram di ci dox.

comme làmb ji la rek ku la dàq gàllaaju ku la dàq sëriñtu non da ngay waaru sax am na yoo xam ne doo ko bëgg a wax sax mais dañu man dama sama jëmmi bopp damay gis yoo xamante ni du ko ñeme nettali nit ku dul ñëw toog ak suma yaay ne ko yaay nii la demee ak lii ak lii wallahi azim nit du ko xam ci man tolof tolof yu bëri yoo xamante ni maa ngi koy dund mais da ngay gëm bopp gëm gëm yàlla tax yàlla moom ku am tolof tolof ku nekk ginnaaw yàlla mën naa ne sunu borom la moo ko dogal bu ko dogul toon tey nangay ngay impact da ngay nekk nekk bi mel ni ñëpp comprendre nga mais ci biir ci biir euh, nga nekk ci aar xam nga tolof tolof di la dal ngay ngay xaddi wala soit ngay désespéré wu déstressé wu non jaru ko. buñ déggee daal ji bi du mu sa xaddi moom. gëm rek gëm rek boo gëmee daal di nga xam surtout nga teg ko ci yoon da ngay dem boo ko gëmul nag yenn yi rek ngay defan ah. da doo dem di yàqalaate kese moo fi nekk. manam hypocrisie bi da fi bëri buñ waxe deug te tax musique gu déjà hypocrisie bi da fe bëree bëri nit dalay fekk ah non laal non la démé rek waaw lu fi lu fi di def def ci ci ci avec bon la sérénité quoi à part ça man gëw lénen leneen ne ah. yalla yalla rek la gëm keneen mom xoluma la yalla la gëm ginnaaw yalla yoonenti bi Serigne Touba mam Cheikh Rafal dabakh malik mais lan ngay wax ñi nga xamanteni dañu gëm mystique bi torop. wa mais ñooñu mënoo leen wax dara parce que ki gëm mystique di def limuy def koku mëno ko téré mu def limuy def ki la bëgg yaqal mëno ko téré téré téré tere te du la même bu ko mënut sax dina jëm lo xamné galancor gàllankoor la lay la comprendre li ma wax. man dal lima leen di digal moy lima leen di digal moy en tout cas su yeboo ñu ñu gëm seen gëm seen bopp delloo xel ci suñu borom nga xam ni mystique yooyu noonu ñuy def yu bon yooyu mooy loolu yaa ma gën a xam daal en tout cas nañu def li nga xamante ni la suñu borom bëgg njëkk njëkkal ci yow jiitalal sa sa bopp ba pare doore doore yéene nit lu bon boo naree yéene nit lu bon yéeneel sa bopp lu bon ba pare waaw ah, boo sa bopp lu baax parce di yéene nit lu bon amul sens. jërëjëf Djiby kon ñu bàyyi nga tàggatoo ndax waxtu bi dam nañu waaw ah, maa ngi ngi gërëm ñëpp di gërëm sama yaay ju ñaawul joju sék jëre nga ci mbéy sax ya nga lambay waaw di gërëm sama mam ajaratu kordu sék waaw mom mi nga xamanteni moy moy moy moy mooy mooy kër gi moy taw kër gi macha allah mooy taawu maam Mari Sène alhamdulilah di siyaar nak ñëk kep kuy seetaan Afrika, Africa comment dirais je presse. comme à part Youssou Ndour daal yaa fi dàkk way Dal. may ñu tuuti. <laughs> en tout cas.

teewaayu ma la oh, yaay yaay booy dundal dundal ba say may di baawaan dundal maam kor du sekk jërëmi ci mbéy ay waay ku bëgg yaayam kooko doyloo oh, baayam alaaji saala sekk yéey sama yaay jee lu neex du doy des koy dog dem ba beneen yoon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf comme nañu leen koy diggee saa su ne ak euh, waxtaan bu ne fu ñu leen koy joxee ñu ngi woon fii si Medina seet si woon Djiby Seye jarbaadu Youssou Ndour dégg ngeen lu mu wax nee na à part Nduur kenn dàkku ko way Sénégal kon nag duñ def lu lu dul jox leen dig daje ba beneen yoon si beneen émission incha allah jërë ngeen jëf.